سيدي الله وبخليلك إبراهيم الله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وذهابته الكرام zawi ridwaani wa tamkiini bokk taalibe yi ginnaaw bu nu santee sunu boroom ci xéewalam yu màgg yu rëy yi mu nu xéewale te lépp ñu am ko ci baaxu ku tedd ki nga xam ne moom la booleel muy alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moom la doon julli ci moom di santaat bu baax Cheikh Amadou Khadim mi nga xam ne bisub Laylatul Qadar bii nga xam ne ki leen bëgg a waxtaan moo nu ci gindi ba nu mën a tëdd guddi gi nga xam ne nelaw ko dara jaru ko may nu ci leeral ba nu mën a jàpp ne guddi gii kat nun moom lan jàpp muy guddi googu te fas kuy ne màggal te jëmm yàlla rek a tax muy wax ne alhamdulillahi al mujibi sil qadar man xasanal fadla bi laylatil qadr Sëriñ Tuubaa di sant yàlla al mujibi ki nga xam ne mooy wuyu képp kuy woote tey boroom dogal yi ba tax mu tuddee guddeem gii laylatul xadri guddub dogal yi ngëneel yi mu jagleel ummatu muhammad alayhi salaatu wasalaam ba ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yi dafa bokk ci li nga xam ne may nanu ko moom yàlla ci baaxu rasulullahi salaa salaam même nu boole tamit ngën ci mbindéef guddi gii guddi gi nag ku ne xam na ne am na suura boo xamante ni kenn mën taxtaan ci leetu xadar te tuddoo ko ndax dañ ko tuddee suuratul xadri muy saar bi nga xam ne yaskuru fiha al xadru ki la yàllay fàttalee dogalam yi nga xam ne jëkk ne bépp bindeef te képp ko yàlla may nga baaxee la ba nga comprendre ko it dana dalal sa xel dana tax nga xam ne it fër-fër yi mayewul dara ñàkk a góorgóorlu it dana la war ndax dangay xam ne nit ku baax ku ne war nay sabablu waaye di sukkandiku ci yàlla mi nga xam ne mooy maye mooy xañe ba bu amee xam ne yàllaa ko may bu ñàkkee xam ne yàllaa ko xañ ndax guddi gi lii xew ci at mi lépp ki ko sama borom di dogal ci at mi yëpp te yàlla day feeñal rek waaye moom noppi na loolu nag am na lu muy def ci xelum xol jullit bu gëm yàlla suratul xadri guddi dogal yi lay firi muy wax ne ina anzalnaahu fii laylatul qadri alquraanam bu màgg ji nga xam ne moom la def muy doctrine l'islam baa muy constitution bi nga xam ne képp ku jullit ci la la yàlla tënk yàlla nee na ci guddi gu màgg gii ñu ngi waxtaan ki la ko yàlla wàcce woon saar wi nag ayaatuha sun juróomi aaye la wa kalimatuha salaasuuna baat yi boo ko wàññee fanweeri baat la wa xuruufaha maa itun wa waahidun wa isruuna araf yi téeméer la ak ñaar fukki araf ak benn yàlla wax ne anzalnaahu wàcce nan ko moom alquran fi samaay dunya fi laylatil xadri ci baytil azza mu wàcce ko ci ki laylatul xadar laylatul xukmi wal qadaayi guddi googu nga xam ne atteem yi ak dogalam yi ki la koy def ci at mi yëpp tudde ko laylatul mubaarakati xam nga ne barke lu sew la julli yëpp a ngi koy ñaanalante waaye bu ko ñëpp xamoon nañ ko war a xamee suñ koy ñaanal nit dana teewlu te kay ñaanit dana teewlu bu baax ndax mooy loo xam ne lépp lu mu ne day yokk lu mu génn day wàññiku barke it la yàlla wàcc ci guddi gi ba boo ci jëfee mu mën a gën lii ñu jëm junni weer yi muy wax kon barke buñ la ko doon misaal xar xaj yi ñoo gën a bari lu ñuy jur xar yi te du ngeen gis benn xaj bu nuy xëy di rend ci réew mi xar yi bis bu set dimitri yi ci réew mi ni mu toll bu tabaskee ñu rendi te boo génn gisaat coggalu xar yi te xaj yi kenn rendiwu leen te doo gis coggalu xaj gu la jaaxal ci at ci sa réew mi te loolu te ñu ëpp luy jur loolu ay xam-xam la yoo xamante ni pour xam luy barke guddi googu nag guddi jéggalu yàlla la war a rahmatin ak yërmandeem wa ma adraka ma laylatul qadri mu wax yonente bi nag xam ngeen luy laylatul qadar maanaam maam fadlu laylatul qadri gënee li laylatul qadar su ma bayee na sunu borom biral fadluha fa xaala laylatul qadri xayru min alfi shahri moo laaj yonente waaye moo ko ne moo gën junni weer alamalu fiha xayrun min amali alfu shahrin liggéeyal ci yàlla benn seconde moo gën nga jaamu ko wala nga liggéeyal ko ci beneen at wala beneen bis bu bu laytu xadar néewul junniy weer nga jaamu ko ci ñaari rakkaa moo gën yàlla nga jaamu ko junniy weer ku jihaad fi sabilillahi yor jaasim xeexal yàlla yàlla nangul ko jaamoom nga xeexam ba ba muy mat junniy weer mu toog ci kanamu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam saabal ko loolu keroog su laylatul xadar loolaa sabab nu suulu saar bi wàcc yàlla wàcce ko fekk na mu dogal ko ndax ki gën ci ñëpp li nu tax a gën nun xeetu yonent bi xam ngeen ne xeet yeenu jiitu am na ki ñuy dund ay junni at am ñuy dund ñeen téeméer juróomi téeméer xeetu rasulaay gàtt gi nu gàtt fan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd gi ànd ak moom tax yàlla ne nu yéen gën ci xeet yi laylatul xadri yàlla wax ne tanazzalul malaikatu wa ruuhu fiha malaaka yi bu gudd googoo leen wàcce ci kaw suuf kenn xamul seen lim ku dul yàlla bu nu wàccee ñuy ñaanal jullit yi di aminu seeni ñaan attamat lahil fajri loolu mooy aaya ba fajar summiyat laylatu qadri li annaha yaqdiru fiha al umuru wal ahkaamu kullaha min tilka sanati ila sanati al qaabili ci guddi gii ci lay yàlla atte li muy atte di ki dogal li muy dogal ba ba nuy dem déwén am na benn jaamu yàlla bu ñuy wax samhun alxaazi muy aji xare joo xam ne xasa alfu shahrin xare na junni weer jaamu yàlla junni weer jaamu ko yàlla nangul ko njaamam ga kookee moo toog ci saaba yi di saabal rasulullahi li mu defal yàlla ak ni ko ko yàlla nangule saxaaba yi daal di ñeewante seen bopp ndax kii ni mu gudde fan ak ni mu toll li mu liggéey yàlla rek ñoon sunu dund ku ko ciy matale bariwul juróom-ñetti fukki ak ñett ñeenti weer ke saasa tam yonent bi dafa daal di ñeewante xel bi moom it daal di mébét fa xaalal lahu ahtaytu ko ummatika laylatul xadri yàlla ne ko jox naa leen guddi goo xam ne ibadatu fiiha afdalu min ibadati sab'ina alfu shahrin juróom-ñaar fukk junni at yaa Muhammad rakkaataani fi laylatil xadri xayrun lakka wali ummatika min darbi sayfi alfu shahrin junniy weeram yi muy wax xare na ko na nga xam ne jaaseem jéeg li mu ki daje doon takkaayam ji benn guddi googu ngeen def ci lu baax joxe ci tàndarma walla ngeen jaamu ci yàlla moo gën junni weeram yi mu jihaat fi sabilillahi inna laa yen si fi kulli laylatil qadri rahmatun danaa wàcce sama yërmande ci guddi laylatul qadar gu ne léegi yërmande yàlla te pour pourtant moom la ñuy ñaanalante ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi bu nit faatoo ñu tëll ko allahumma yaxfir warham yërmande yàlla jooju yàlla nee na naa ko wàcce ci guddi gi ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi nee na sama yërmande bu doon téeméer la benn bi laa jël séddale ko mbindeef yëpp jël juróom-ñeent fukk ya jagleel ko sama bopp moo tax yërmandeem jooju yaatu googu mu yaatu ba rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi yàlla yónni ci ñun amul benn bis bu mu daan xëy te néewul yàlla allahumma maxfiratuka awzamu min zunubi wa rahmatuka arja'andi min hamali yow yàlla sa njëggal gi gën a yaatu suñuy tooñ sa yërmandee gën a yaatu samay jëf yaakaaruma sama jëf man rasulullah xaatimu rasul ak jëfam jure yi nga xam ne moo man ci mbindeef yi kee gën ku yàlla bind waaye kee gën man ñëpp mu sëñ nee na li ma yenn ci toolub yàlla bi fu ma ko sippi kenn ku yàlla bind attanu ko rasulullah yi ngeen ji mbindeef waaye maay man ji mbindeef man sëñ Bamba kookee ak jëfam ju rëy jéeg liggéey bu réyam bii dafay wax ne rajawtu rahmata rabbi wax yi waa waasihatun wa rahmatallahi arjaali min al amali man Serigne Touba day yaakaaruma sama jëf yërmande yàlla laa yaakaar guddi gi yërmande yàlla googu yàlla tuddi guddi yërmandeem boo xam ne dana ci wàcce yër jooju asafa illa wulidoo fi haasa laylati dañu demee ba yërmande bi ñëpp séddu ba mu des yàlla ne malaaka yi des bi nag képp ku judd ci guddi gii kibliir na ngeen ko ci sédd waxaal lahu Moussa uridu xurbaka Moussa dem na ba ne ko dama laa bëgg a jege mu ne ko ah loolu day nit góorlu moo may tax a jege waaye lahu wax xurbi li man as as tey xasa laylatu xadri kuy guddi laylatu xadri ku ko veeyee kookee day veillé ga mu veillé Laylatul Qadr dana ko may sama jege ma waaw bu nu Serigne Touba dimbali woon xamal nu ne guddi xakkun gii ñuy màggal moom la nan la ñuy veillé kon démb maa ngi fanaanee nelaw keneen noonu kon kooku kenn koo xamee mën nga koo fay moom Seexul Xadim ci noonu amut wa rahmati li man yarhamul miskinu Laylatul Qadr sama yërmande it maa ngi ko warale ci ñi nga xam ne danañ yërëm miskini Laylatul Qadr di leen dimbali ci ñam wala da leen dimbali ci la leen tane wa jawaasu ala siraatikal barxi kip ku dem si àjjana te doo la isaab kenn lu la sing sëñ suñu borom neena na saalika li man tasadaqa laylatul xadri kep kuy joxe ab ndimbal wala sarax di ko jox doomu adama ngir yalla ci laylatul xadar neena na la defal bu ëllëgee kenn lu la moy foot ndax do tak bakkar te bakkar du dugg àjjana do fa yóbbaalee ak dina ko fayal ña nga ak àq ba kenn du taxaw ak yow di poñanteeg yow wala muy téyanteeg yow ndom bay baat ndax magal gu dig laylatul xadar neena na ku koy magali dina la defal garab yo xamni ne ker ga fa ker ñaké boko déggé moy ku am bakkar da nga taxaw pencum yalla ñu wacc gënt bi lak sa bon ñu yàlla lay keral wala mu duggal ci professeur yonent bi bu mu leen musal ci tak bakkar moy tax duñ fekk pencum bi ndax lu bon mo do dugg aljana te jant bi moy lak lu bon ndax sawara ki leen bind iblis ak képp ku and ak mom lepp lu bon sawara la cosaanoo ci lay dellu motax yalla lay wacc jant bi ngir lak seen lu bon <laughs> ndax lu bon dugg aljana yooyu nak boko ame, amee màggal guddi gi bu dee mën dimbali ba lu bon dula tak xam ngeen lu ci way def rek war nga def lu ko ngay lek ci fa ak lu min chemariha wa min asabarallaha najatu min an nari neena kep ku ci jégglu yalla da nga mucc ci sawara radallaahi liman salla rakatayn laylatul qadr neena sama ngërëm it waru na kep ku ci julli ñaar rakka ngërëmal yalla moy tax ab jamana yegg ci borom jege suñu borom من خالف تلك الليلة عليه الصلاة والسلام يالا يوني سي نيون تي گنو خم يالا نيب نانا كو واخ لا اله الا محمد رسول الله نيت يون بن بو نديك بي قفر رب الواحد نانا لا جيگل سي بن بي ونجاه من النار بواحد نانا لمد الله ثلاث ما اتسنا فقال له ربه ان لعبادي ليله هي ليله قدري خير من عبادتي كلها ليغا في ديف لب كي لو باخ سي نيت جوني ات ييغا جامو يالا sama xeetu sànq soppe bi rasulullah bu dikkee yàlla koy waxanteeg moom kat te moom ci Bani Israël la bokk danañ am génn guddi goo xam lu ñu ca def moo ëpp moo gën a sakkan moo ma gënal moom laa gën a sopp sa jëf ji loolu yàlla wax na ko lenn ci kilifa yi bann Israël kon laylatul xadar xayrun min ibadati kullaha ngay jaamu yàlla giirug dund kon te amu ci mënoo koo am la nga cay mën a am ci guddi googu نوين علي سلام دعا الخلق ألف سنة جني أد لوات يالا يمانك جروم فوق موي لما لين نوح يرنت بدا توق نه يالا يحال تا أمومي أحمالا وأقل أحمالا نيوم دف لين يغات فانتين نيو أي جف سما خيروي يالا نكو أي دفل لين لو خم نتي باركة ليل تخدر بديكي لينجي وخلب بوكو ديجي لين خم نه جودو فانجي بوت نك خم نوهين جني أد يمانك جروم فوق لوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ميكو يالا يبخ dafa woote lan ñaar fukk at ak ñett kii woote junni at ak juróom fukk ëpp ko mbooloo lool gën ko boole ci te ñoo bokk lu ñu doon defal yàlla muy wooteel ko rek waaw ki woote junni at yu manqué juróom fukk ki woote vingt-trois ans ak saru min min min tawaabihi noohin moo ëpp li ko topp foofu yonentu yàlla noohin mu woote junni at ak juróom fukk waxta la foofu fi tilka laylati waaye nag wuute am na ci guddi gi nag kañ la lan moo waral sëñ Tuubaa liggéey ci liggéeyam bu rëy bii ñuy faral di waxtaane laylatul xadar boo demee ci nitu yàlla yi danoo bari ak wuute ci moom yonent bi yàlla yónni woon si ñu dafa wax ne gisoon naa ko waaye yàlla nëbbu ma ko yàlla wonoon na ma ko waaye daf ma ko réeral dama ko dama ko fàtte waaye bëgg noo wan ne lu mu war a làmbatu la rek yàlla lu mu nëbb ab jaam day lott ci xam ko Cheikhul Khadim mi nga xam ne da koo jagleel jagle goo xamante ni ba adduna di adduna ba tey amul kenn ku yàlla mas a wàcc ci kaw suuf may ko jagle gu toll ne gi mu jagleel Serigne Touba te moom dangay dégg mu yox ne lii xaadama baana ba ma lay siyee bii li nëbb woon ak li feeñ lépp yàlla won na ma ko yàlla jox na ma ko allah mani laawul alim maa sha min hulum lépp lu ma soob ci xam-xam yàlla xamal na ma ko tawajjuhi li la si yoxleel maqama bi la ijaarin min jihaati saami wa siini ma saam jàngi wala siin waaye képp ku jaam di siin ak saam boo ma jàngee sama mbind mi da nga ci dolli ko man li may bind nas man yarumu xaala kulla mubtadi wa xaala muntahi ku jàng ba jeexal boo ko dikkee ma dolli la mën sëñ Tuubaa te kooku xam nga ne la mu yor kon sunu borom la réew mi ñu fi jàng ba seen am ay doctorat ñepp dañoo dem tinisi wala ngi dem misel wala ñu dem ganar <laughs> gi sax wala dañ fa doon wuti xam doole ko xam-xam waye Serigne Touba mi demul fenn bool gi genn ko day wax ne képp ku jàng ba jeexal moo tax day wax ne walaata daal nax mi yaa nabil li may bind bul ko doye din mukk de an ax yi kaw ni mi ngir li may nit ku ñuul walaata nas mi yaa nabil an an ax kaw ni mi na bul ko jappi nak kaw ni xasirat fi sal jiri ñak ma dem ñak dem jàngiwuma Tunisie jàngiwuma Saam jàngiwuma gànnaar bu mu tax nga doyee li may wax baa nga jéem koo jàggane ndax li may wax ku ci dikk da nga ci fekk loo xamante ni ku jàng ba jeexal te jàng ko da ci fekk lu la dool kon dimension bi mu waxee woon na ne dafa kawe li mu fi fekkoon dem na ba bind wax ne afistu machine ani dafatir léq naa ci xam-xam loo xam nekkul ci fekk wi kooku moo waral coow lii Laylatul Qadr gii nga xam ne am na ci nitu yàlla yi ñu wax ne awalu laylatin mooy guddi gi njëkk ci weeru koor waxaale ba àdduhum am na ñu wax ne laylatu sab'a wa ishrina mooy guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar gi an abaa yasidil bustaami yi xaala raaytu laylata xadri fi jamii humri maratayni abu yasidil bustaam nee na man sama dund yàlla won na ma ci laylatu xadar ñaar yoon benn bu yàllaa ko ne guddi gii nga ne mooy guddi laylatu xadar waaye wa sirru iqfaayiha ala ummati an yajtahidu fi ibadati jamii layaali ne bi nee na li tax mu yàlla def mbootum nëbbu ko bëgg xeet wi jaamu yàlla weer wépp farlu ci moo tax ñu nëbb ko ramadaan nag kama afa saatul ijabati fi yowmil jumaa bisu àjjuma am na ci waxtu woo xamante ni saa boo xam ne yàlla ne ku ma ci ñaan ma may la mais da ko nëbb bëgg nga farlu ci àjjuma jépp wa salaatul wusta julli juróom danoo wax ne ñi naan tisbaar ñi ne tàkku suba yàlla nëbb ko واسم اعظم في اسماء الله تورو يالا يي امنا تورو أنا خامني نكو ماشي نيان ماماي لا مي داف كو نوب وايي نك اخفال يسر المسون الله حبا واو لا يالا نوبون وون جيم كو وون كوتل تي قدم رسول با تخ مو مانا ديف لو خامتيني توسو داي بيت بي ديفي دون لو تومرانكي من قام ساحة في الليل تخد أحب إلى الله من سام الدهر كله كيف كنت تخوتي ليلة تخدر مقل كو يعني أنت بي صلى الله عليه وسلم نينا defum joju momu gëna sopp ci yàlla mu ko wor gir dund gu leetu xal ànd gir dundam wala si yab azani bil la nabiyan giñ na ci yàlla mi ma yoni may yoneen ci seen bir ayatun min alqurani laylatul xadri ahabu allah min an yaqtimu fi khayriha nga jàng kamilu alquran nee na benn ay alquran bo jàng ci guddi laylatul xadar ko gëna mag màgg kon gars xam ngeen ni am nañ guddi gu reey de guddigu mag go xamanteni aisha bokk na ci yi ba ëppoon xam-xam yonent bi ne woon ba màkka na ngeen di jël seen xaaju diine si soxna su xees ci tuuti si soxna ji Aïcha nee na radiallahu anha annaha xaalat qultu lahu ya man Aïcha bis bu ma yàlla mayoon ma fekk guddi googu xam ne tey la lan la may digal ma ñaan ko sallallahu alayhi wa ne ko na ngay wax allahuma annaka annaka afuwul karim tuhibbul afwa fa'fu anni loolu war naa tax ku ne am ñeewante ki moroomam yonent bi ne ko na ngay wax yàlla ne ko yow mi nga xam ne yaay alaafu xam foofu mooy ñeewante nga am ci doom ji nga jur yàlla ne bil mu'miniina ra'uufun rahiimun ra'uufa ñeewante afu jéggal du mooyu jéggalu ku tooñ te tax balubu nga baal ko ngir bañ koo duma fuufu te ba noppi ne bëgg ku koy def nag nee moom moo ko doon karim la waaye nag nee na bëgg na ñun jullit yi di ko def suñu di diggante di jéggalante waaye loolu la ko wax ne ko dee ko wax de ko ñaan kon loolu it nit lu mu ñaan da koy da koy ji waaw yàlla daal loo bëgg ma defal dee ko defal nit ku bëgg yàlla di la jéggal da ngay jéggal waaye koo xam ne loo ngànk mu dagg <laughs> loo jàpp doo ba bu ñu yëpp taxaw ñaan la doo bàyyi kooku dub jullit borom xol bu wooyee noonu dub jullit de soxna Aïcha mii may wax nii wax na moom soxna jee Aïcha wax ne mooy guddi euh, fukki fan yi ak juróom-ñeent te da ko daan déykat ay wëllëreem ndax yonent bi xam nga ne Aïcha lu mu xam yonent bee ko wax waaye Sëñ Tuubaa bi si mu wax guddi googu da cee bokk moom itam guddi gi yi may jotul lim yéen a ngi koy dégg sidratul muntaha yàllaa nga bind malaaka yoo xamante ni kaxabul axbaar ma ngi wax ne ñoo nga fa laa yaxlamu addadoom illallaahi taala yan si lu na maa jibril yadoon lil muminina wal muminaati bi xayrin nee na guddig leen xadar yàlla dana leen wàcce kenn xamul seen lim ñoo nga ci ginnaaw seen remouta wuute na sax malaaka yi nekk ci juróom-ñaar asmaan yi yàlla dafa bari kiimaan waaye ñooña da di wàcce leen xadar ñoom itam ñuy ñaanal yi way gëm yàlla aw yiw attamat layil wa saafahum jibril nee na dinaa saafonteeg way gëm yëpp wa qaala baadul ulama yàlla nee na tanazul malaykatu ba noppi ne war ruux malaaka la boo xamante ni yàlla ay kéemaanam kenn da ko mënta xamle bu wàccee leelitu xadar jëmm ji xuwa raja rëjjëlalahu taxtal ardi saabiha tànk yi dana sar ba juróom-ñaari suuf war a suuf taxtal arsi bopp bi dana bëtt juróom-ñaari asamaan ba tekk ci aras ci kanamu yàlla sunu borom moom ruum noonu la toll moom malaaka moom bu dikkee alfu alfu rasin yàlla bindal na ko alfu rachin junni bopp bopp bu ci nekk ci boppi ruuxu mi axsamu min ad dunya moo gën a rëy adduna benn bopp bu ne ba muy junni bopp te wala li kulli rachin alfu waccin bopp bu ne am na junniy xar kanam xar kanam bu nekk wa fii kulli waccin alfu famin am na junni gimiñ wa fi kulli fi alfu lisaanin gimiñ gu ne am na junniy làmmiñ làmmiñ wu ne am na junni làng yu muy sàbbaale sunu borom ci kenn muy malaaka boo xamante ni yàlla boo gisee mu koy setteew te na malaaka wata ko yow ma yàqoo mu ruuxu woon malaa'ikatu safar la tax yàlla settee ko nga xam ne ñoom ñëpp bu ñu woon seen kattan kattanam googu da koy ëpp bu sàbbaa benn sàbbaa day mel ne ñoom ñëpp bu ñu woon leen sàbbaa da koy mën a ëpp sëñ Tuubaa ci xeeti mbindeef ko yàlla bind Seexul Xadiim mii day wax ne sama jaamu yàlla ak boo jëloon jaamu yàlla mbindeef yëpp teg ko ci balaa mu wat ko sëñ Tuubaa yàlla da koo dox kattan goo xam ne wali jaxal tam bi que kulle sahrin fawqa ibadatil a fi dëri sama jaamu yàlla weer boo jëloon jaamu yàlla bindéef yëpp moot ko Malick day wax ne imaam Malick mi ñu topp ngërëm da koy sàkku ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar yi waa kaddu léegi na nee na noonu koy xaaj bu mujj bi ci weer wi waaye nag nee na gën naa fedd li ñaar fukki fan ak juróom-ñaar yi Shafiu rahimahullahu ak kadaha ma ngi fedd ihdaa wa isri nag guddig ñaar fukk ak benn gi yaa ngi dégg ma ne Aïcha nee na mu fukk ak juróom-ñeent xaala Aïcha radiyallahu anha annaha laylu taashan wa asra guddi fukk ak ñeent la Abu Burdat al Aslami radiyallahu anhu iya laylatu salaasa wa isrina nee na ñaar fukk ak ñett gi la waxaala ibnu abbas wa ubay ibnu kaxbin radiallahu anhuma annaha laylatu sab'a wa isrina guddi ñaar fukk ak ñaar lan wax kon ñoom bi si sëñ wax yëpp ñoom ñëpp wax nañ ko moo tax boo jàngee wax ji sëñ tubaa wax ci ngay comprendre que ne Serigne Touba dafa dikk nag tijji bopp nit ñi la taxoon kenn ñaar fukk ak benn la kii ne nangam la la koy taxa doon loolu la tax Aïcha yonent bi tey li tax a mu ko déey ay soppeem te bu weeru teroo beneen bis que doon bis boobu Aïcha wax <laughs> kii li Serigne waxee ñeneen ñii lim yi nu mooy li Serigne Touba lim kon kooku te ak ak modeste bi ko Serigne Touba defee Serigne Madiaw xawalal mu ne doon na ko yaa man laylatul xadri tarum yow mi nga xam ne da ngaa bëgg xam laylatul xadar te mu ump la nas ma arta bi maa xàkka ahlul ulum maa ngi lay bindal ay way yoo xam ne borom xam-xam yi ñoo àtte ne lii la xoolal mënoon na caa bañ a effacé boppam de xoolal borom xam-xam yi xat axbaru nee nanu waaw waxul maa ne de xat axbaru bi annaha takkuunu fi nisfil axiri lan ñoo doon wax mu ne dañoo waxoon ne Malick nee na ci xaaj bu mujj bi ci weeru lay doon nee na fi nisfil axiri istabil ne loolu lu bir la nee na ci xaaj bu mujj bi lay doon istahara ramadaan asami bi laylati isnayni yaa man yafhamu fa laytu xaddi takkuunu abada fi taayi baxdal yaay inda man hada inda man hada ki ñu am njubug lislaam day nee nañ bu weer wi teroo bisu dibéer laylatu xadar gi ngi doon laylatul taayi baxdal yaa juróom-ñeent ak fukk muy fukk ak juróom-ñeent lakkin isas sa saxru nusuki yow ma sula bisub talaata bu jë bu altine bu teroo nee na guddi fukk ak juróom-ñeent ga nee na bu teroo talaata comme tey bii ñuy màggal tey jii muy muy leylatu hakkin isas taxala sahru nusuki suñu weeru jaamu yàlla gu réy gii weeru kooru mag wi nee na bu fekkente ni dafa teru bisub talaata comme ren fa laylatu hëkki hëkki alkubeer gi juróom la kaaf gi ñaar fukk la muy vingt cinquième jour guddi ngeen vingt cinquième jour mooy ginu màggal bi du ñu màggal nii démb faxaay suma yaloox bi arboxaa yi bu dee bisu àllarba la nag fa innaha fi sa ibadal yaay mooy raser juróom-ñaar la yaa gi fukk la muy vingt dix-septième jour way yaloox yowmal xamisi ramadan bu teroo bisu alxames fa fi kajjin bi jiimitil ka tostabaan mu ne la bis ba kajjin lay doon keef gi ñaar euh, ñaar fukk la jiim gi ñett la muy vingt-troisième jour ba amma isaabil jum atil hilaalu laaxa bu weeru teroo ajjuma fa fi katin mooy vingt-neuvième jour ba alaa maa xaaloo ci li nga xam ne moom la borom xam-xam yi wax xam nga waxul ne dafa mel ne ku ci génne boroom xam-xam yi loolu lan wax nee na walam yellof bi sabti yaa xalil yi yow sama xarit su fekkee weeru bi samedi la teru fa fi akkin vingt et un jours ba mooy laylatu xadar ga rum tilka bi tab ji li na nga sàkkoo màggal guddi googu bis weer wi teroo bisib bu daaw summa isaa bi laxdi xat laaxal xilaal bu teroo dibéer muy dimanche fa fi kasin mooy vingt-septième jour bi nga xamante ni moom la ñu ëpp saxal di ko ci màggal kon loolu rumahaa xat suma tamma xaama xaal nee na seeni wax ñoom borom xam-xam yi nii la toll te ba demee ci achetu saawiya abu asan zazeli ak ni mu toll ci xam-xam nee na bis bi ñoo ngi koy xamee ci bis bi weer wi teroo loolu abu asan wax na ko ci waaw tuwaafiqul jumaata witran lu kéemaane la moom itam mu ne bis bu ajjuma lay degeel te it day impair du doon bis bu pair 23 21 25 17 29 mu ne du doon bis boo xam ne day pair tënkaat ko nag ne day dajeeg ajjuma lakka sun niyatun sa akun rayas ak xaqajun jukkatun sa akun mayas loolu sëñ Tuubaa tënkaat ko ci benn bay boobu ndax bu dul woon ajjuma danañ jaaxal nit ñi Cheikh Abdou Khadre Jeylaani wax na ci xunya bu Cheikh Abdou Khadre Jeylaani fa al laylatul xadr jumaati afdalu am laylatul xadri loolu Cheikh Abdou Khadre Jeylaani ko laaj de ndax laylatul xadr la gën ajjuma guddik ajjuma ndax guddik ajjuma gënul laylatul xadr kon bu dul guddik ajjuma ci lii xunya boo demee si Abdou Khadre Jeylaani bind lii an ibnu abbas annahu xaala xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxfirullah laylatul jumati li ahlil islam ajmahina guddi àjjuma gu jot yàlla jéggal mboolem waa lislaam bépp wa maa ruwiya an anas ibnu malik anas dafa wax ne maa talaxat samsu nee na jant bi fénkul génne benn bis alaa yawmi azamu indallahi min yawmi jumaati benn bis bu gën a màgg guddi bisub àjjuma yàlla fentu ko ci at mi kon guddi àjjuma gii wala ahabu ilayhi minhu amul lenn lu yàlla gën a sopp guddi àjjuma waa kon léegi bu doon laytu xadar valeur bi ko yàlla jox bu ko defoon ci gëneen guddi moo tax sëñ Tuubaa waxam yii dafa doon loo xamante ni ku di jullit war nga ko mën a dégg te dégg ko xel te bañ ko dégg xol bañ ko dégg par parloo xam ne kii ndimbalu jullit ak lislaam bépp leen rasulaay ko tànn yónni ko fi ngir mu leeral lislaam ngir mu dimbali si xeetu rasulaay wi te dafay wax ne kat fi mantiqi laa shàkkali ndax man lam yemil këlkël yi li xayri ilaahi sama xol itam mësta jeng jëm ci lu dul yàlla mësuma bokkale yàlla ak dara man sëñ Tuubaa te sama làmmiñ wi it ci wax lu ma am sikki sàkk xam nga sikki sàkk mooy taradul moom la téere yi wax ni kii ne lii kii ne laa kene la sëñ Tuubaa ne fi mantix yi laa sàkk lii sàkk amu ci sikk amu boo demee ci midaad yi day wax ne yaqiini yaqiini sàkk fi siri wal adan sama yaqiin moo ma fegal sikki sàkk ci lu nëbbu ak lu feeñ man lu ma wax rek dama ko waxee noonu laa ko xamee te uniltu biha kaw nii la la laay saa sëqi bu leen neexee nag ngeen xel ñaar wala ngeen weddi waaye ca yàlla de man boroomu dëgg laa fa kon noo ngi santaat sëriñ bi tey ñaan yàlla defal nu ki dégg toog topp laylatul gi xëy na li mu ëmb ci ay maanaaki njariñ ëpp na lii may wax waaye nag doy na tënk ndax waxtu wi dafa am fu ñu ko limité ci waxtaan wi moo tax maa ngi nuyu jullit yëpp te leen kii ndokkeel tey dolliwaat di julli ci rasulaay mi nga xam ne ci ngëneelam ak mbaaxam ki la nu yàlla defal favori yi yëpp ngir bokk ngeen bokk ci xeetam tam ne moo gën ci xeet bi kon noo ngi santaat yàlla tey julliwaat ci rasulullah salaam tey ñaanal julli yëpp nag ci barke guddi gu màgg gii yàlla doolu nu yërmande ak njëggal te goreel nu ki sawara ci barke weeru koor bi nga xam ne nee na fukk yu njëkk yi ak njëggal la bi ci digg bi yërmande yàlla la bu mujj bi mucc gore ki sawara la kon weeru màgg bi maa ngi ciy ndokkeel jullit yëpp tey ñaan yàlla nangul nu ko te defal nu ci lu faw xasuñu jortu ñun ñëpp bi jaay rasulillahi barke cheikhul qadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu الله بالمصطفى سيدي الله وبخليلك إبراهيم